الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله
حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمه وكشف الغم عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk jullit yi suñu xutba tey mooy asbaabu shirk billah lan moo tax sabab yi bëri bay dugal doomu aadama ci bokkaale xam ngeen ne bokkaale feebar la dafa yàq fitra ni feebar di duggee ci yaram yàqu xol waaye mboolem feebar boo gis rekk wali kulli marad asbaabu feebar boo gis rekk am na sabab feebar bu dal doomu aadama feebar boobu am na sabab lan moo tax mu dal ko feebar bu mu mën doon bokkaale yàlla nag ci feebar yi gën a bon la bokk ndax feebaru àdduna yi ay jabeta ki ay suukara ki ay sibburo ki ay korona yooyu yaram lay yàq amma feebaru bokkaale sa pas-pas lay yàq safara lay jëmee mbokk yi waaye feebar boo gis am na saafara ci bu boroom teelee jóg su boroom yéexut a faju su feebaree ñu yóbbu ko hôpital professeurs yi ak docteurs yi mag yi def diagnostic xool yaram bi xam na kii kat feebaru nangam moo ko commencé yoot mënees na koo saafara mënees na koo faj mënees na koo utal garab parce que day fekk feebar bi chronique gul amma bokkaale yàlla bu ci nit dund bu ci nit dee safara la jëm ak moom te tey ci sunu dundin dafa mel ne doomu aadama yi dañoo xabtalu jëm ci bokkaale dafa mel ne doomu aadama yi xamatuñu kan mooy seen boroom xamatuñu lan moo tax yàlla bind leen li ëpp ci nit ñi li yàlla di wax ci suratu yuusuf wa ma yu'min aksaruhum billah illa wa hum mushrikun lu ëpp ci nit ñi gëm nañ yàlla waaye dañ koo ànd ak bokkaale su weli àlla e su neexee yàlla ak yenn saa yi sax léegi kenn dootul tudd yàlla dañ naan bu neexee diw rek su neexee diw wala diw mooy fay benn waaye daf maa yónnee benn question mu ne damaa gis benn yalwaankat boo xam ne danaan maa ngi leen di ñaan waaye diw moo leen di fay ndax kooku dinaa jar naa sarax maanaam maa ngi leen di yalwaan waaye bu ngeen ma joxee du yàlla moo leen di fay diw mee moo leen di fay foofu la doomu aadama yi toll xalaatatuñu yàlla diw rek diw diw guddi diw bëccëg diw guddi diw bëccëg waaye loolu nag doomu ndey yi dafa am sabab dafa am sabab nit ñi dem ba chronique ci feebaru sirk feebaru bokkaale yàlla dafa am ay sabab yoo xam ne moom moo ñëw moo tax sabab yooyu dal ñooñu ba ñuy bokkaale yàlla tabaraka wa taala yooyu ba ci jiitu mooy al mubaalaga fi l ijaab wa taazim al mubaalaga ëppal fil ijaab ci yéem nit màggal ko loolu ëpp nit la woon nga jàpp ko di ko yëkkati di ko yëkkati di ko yëkkati ba rombal ko yàlla te doomu aadama kese la woon mbindeef comme yow ni nga juddoo noonu la juddoo fi nga jaar foofu la jaar yaag moom yéen a bokk boroom waaye yéem gum la yéem ak bëgg bi nga ko ëpp nga yaakaar ne moom mët na walla nga dem di ko rombal mbindeef yi di ko rombal mbindeef yi ba eggal ko ci yàlla tabaraka wa taala bal nga rombal ko yàlla moom nga def ko yàlla al mubaalaga ëppal ko fi taazim ci màggal gi nga koy màggal bu taxawee nga toog bu toogee nga tëdd wala ngay raam boo solee sa mbax ne boo ko séenee simmi ko simmi say dàll di raam di torox loolu xam ngeen ni amul woon ci jamono sahabatul kiram musu leen dégg sahaaba yi yonent bi amoon na cent vingt quatre mille sahaaba musu leen cee dégg am na ku ko doon toroxlul di ko raamal walla walla daal di koy jël teg ko yàlla tabaraka wa taala abadan lu tax parce que daf leen a jàngal parce que daf leen a yar parce que daf leen a orienté bu leen fàtte délégation bi ñëwoon naan ko anta sayiduna wabnu sayidina daf leen a freiné ci saase ne leen laa tatruni kama atarati nasara ibnu maryam innama ana abd fa qulu abdullahi wa rasuluh waaw xam nga xam nga nit ñi dañuy jaayaate yow doo ngand yow yaay ngand mi yow yaay yow yaay yow yaay ñooñu ñëw ne ko yaay sang bi yaay yaay mu ne eh, taxaw leen ñooñu ne pott nopp mu ne leen bu leen ma jay waaw dañ lay jay xam nga jay weesuwut nga nekk mbindeef léegi léegi ci fajar nga génn ci duus bi léegi léegi nga jóge ci boolu ndékk bi léegi léegi nga bàyyi ko ci sa soxna ñu naan la yaay yàlla nga ne pott noppi ñu ne la yaay yàlla yow yaay yàlla yaay borom jaam ñi nga ne pat te léegi nga jóge ci duus bi xanaa déggu leen Isa ak yaayam bi yahud yi ak nasaraan yi naan Isa yàlla la xanaa déggu leen yàlla lu mu leen tontu borom bi nekkul foofu naan leen déedéet ñoom ñaar duñu yàlla de dafa ne ñoom ñaar ñi ngeen naan yàlla la kaana yaakulaani taam ñoom ñaar de dañuy lekk soo ndékkee nga añ nga reer 24 heures bi yàlla nag bul lekk baasa salte 24 heures après luy xew kaana yaakulaani taam kon du ñu yàlla naka la ñuy séenee am bindeef waaye lu waral loolu mooy jël nit ëppal ko fi nga ko waroon teg loolu moo daloon qawmu nuux borom bi diñ ko nettali ci même saar wa qaala nuuhun rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maaluhu wa waladuhu illa xasaara wa makaruu makaran kubbaaran wa qaalu laa tazarunna aalihatakum wala tazarunna waddan wala suwaa'an wala yaxuusa wa ya'uuqa wa nasra ay nit yu baax yu amoon ci avant Nuux nit ñu baax ay borom xam-xam ay nit yàlla ñooñu faatu nit ñi bëgg gi ñu leen bëggoon màggal gi ñu leen doon màggal rëy gi ñu leen doon rëyal ñu dem def leen ay estati ku nekk fa nga toogoon di jàngale ñu daal la fay samp def la fa estati noo tax nuux bi mu ñëwee di leen waar ñoom ñu woote réunion daan ne bu leen bàyyi seen yàlla yi bu leen bàyyi yàlla yi ana yàlla ya mooy ñii ñii nga xam ne ñooy suñuy kilifa ñooy suñuy mag ñoom la ñu xam ñoom démb loolu daanaka waa Sénégal moom la ñuy toppandoo boo nee yàlla rek nga dégg ku ne waaw ñii dañoo contre mag ñi waaw danañ jël ab mag di ko dëkkaleeg yàlla. loolu ban xel la beneen bi mooy yow lii ñu lay tere ndax diine moo la ko tere wala kan moo la ko tere kan moo tere bokkaale suñu borom moo ne bu ma kenn dendaleeg kenn bu ma bu kenn dendaleeg lenn. innahu man yushrik billah faqad harrama allahu alayhi aljanna wa ma'waahu nnaar wa ma lizalimina min ansaar yàlla nee na li wóor tey mbir ku ma dendale kenn ba nga dee yow effacé naa sa tur ci waa aljanna safara nga jëm direct loolu yàllaa ko wax yàlla moo ne wa man yushrik billah faqad dalla dalalan baida ku bokkaale yàlla réer nga réer goo xam ne doo kenn dootu la mën a gindi te loolu yenu na maanaa ku jaawale yàlla ah ak su nit jaawale woon sa jabar ak jabaram du du yomb noonu de nga ne ko lii la mu ne dama leen a jaawale kese yem foofu ndax day yomb noonu dañ seetaat suñu bopp ixwatal iman ñii loolu lañ def xaw mu noo lan moo leen dugal ci bokkaale mooy màggal gu ñu màggaloon gaa yu baax yii màggal gu ñu leen màggaloon rëyal leen yóbbu leen nag léegi ba ne su nuux di wax naan leen yàlla ñu ne leen déedéet laa tazarunna alihatakum bu leen bàyyi yàlla yi bal dañ leen a jële sax ci ay mbindeef fàtte ne ñoom dee nañ nekkatuñ fi waaye ñu def leen ay yàlla kon ëppal ci nit li muy jural doomu aadama mooy bu la yàlla dimbaliwul nga def ko yàlla noonu la nasaraan yi def isa wa qaalat an nasara almasih ibnullah yàlla ne zalika qawluhum bi afwahihim yudahi'una qawla allazina kafaru min qabl qatalahum llahu anna yufakun nasaraan yi lan moo tax ñu alku jël Isa def ko yàlla parce que gis nañ muy def ay mbir yoo xam ne jàpp nañ ne lii kenn mënu ko kudul yàlla ñu rëyal ko màggal ko def ko yàlla yàlla mu ne ñoom ñoo ko wax dem nañ ba nural a seen wax ak waxu yéeféer yi yàlla mu ne rëbb naa leen qaatalahumullah yal na leen yàlla arak annaa yufakuna fu ñu mën a nekk loolu nasaraan yi def loolu la yahuud yi def màggal uzeyru ba ne uzeyru doomu yàlla la wa qaalat il yahud uzeyr ibnullah kon màggal nit ëppal ko day dem ba yenn saa yi fa mu waroon a yem nga ëppal ko foofu ñaareel ba tax doomu aadama di dugg ci bokkaale mool al maylu ila al iman bil mahsuusi wal xu- wal xafla al maylu ila al imaani bil mahsuus wal xafla an gayri al mahsuus xam nga ngëm goo xam ne doomu aadama bi ngëm gi tegoo ko ci xam-xam da ngay gëmantu rek inna wajadna abaana ala umma wala yow sa ngëm ci sentiment nga ko teg wala sa ngëm ci ay def def ay déglu ay léeb bàyyi sàmba nee na bàyyi demba nee na néew yi dañoo jóge woon fële naan kafe daal di delluwaat tëddi xam nga yooyu doomu aadama fekkee yooyu lay gëm foofu nga teg sa imaan nga wax nga ne dëgg la man gis naa néew yi yëre yu weex lañ sol daal di jóge ci armeel yi ñëw naan kafe delluwaat néew néew dina jóge ci armeel di naan kafe wala ñu ne waa ji dafa faatu ñu suul ko ci armeel yi mu ñëwaat dekki ëmbal soxnaam delluwaat doomu aadama bu demee ba tollu foofu loolu ñu wax ko nit mu gëm ko ana sa xel ana xel yi ku dee ceerno yunus wi kanko ndewa maayi nde ko nawaaɗo ko lootaaɗo o hasna o juula o ubba ko nawaaɗo ndewa artata nde holmo addimo holmo yahdi mu deewee dañ koo sang sang ko jullee ko suul ko yóbbu ko bu muy ñëwaat ku ko indi commandal ana xel yi kon doomu aadama li tax muy dugg ci bokkaale yenn saa yi dafay ngëm ngëm goo xam ne kenn xamul fu mu ko teg waaw lii rek nga dégg ñu ne mun naa nekk te boo taxawoon fii léegi ne asamaan day taw xaalis ñëpp romb la kenn du taxaw dañ naan kii dafa dafa am problème waaye léegi boo taxaw fee ne diw day wàcc léegi ci asamaan si nit ñi taxaw di ko xaar taxaw leen maa ko gis démb mu ne ma fii laay wàcc ñaata yoon la ñuy gis fii ñu ne ci garab la génn ñaata yoon la ñuy gis ñu ne ci miir bi la génn ñaata yoon la ñuy gis ñu ne mu ngi ci géej gi ñaata yoon la ñuy gis ñu ne mu ngi fii ci dex gi ñaata yoon la ñuy gis ñu ne benn waay ne de biig maa ngi moom ñoo nekk ndoon fii fii la toog fii ma toog nga dégg gaa yi di yuuxu kenn nee na man caabi àjjana Kaolack lañ ma ko joxee Kaolack waa léegi nit ñi ko doon déglu foofu wax dëgg yàlla waroon nañ ko wax fan ci Kaolack ak ban malaaka moo ko indi ak kan moo la ko jox wala da nga naan caabi àjjana dañ ma ko jox Kaolack rek nga noppi nit ñi ne di yuuxu di yuuxu di mbëkk ay pot lamp ana sunu xel yi ñaata yoon la yàlla wax ulil albaab inna fi xalqi samawati wal ard waxtilaafi leyli wannahaar la ayatin la ayatin la ayatin li ulil albaab allahu akbar léegi ana ulul albaab yi ana xel yi ana ñu kon doomu ndey yi mbokki jullit yi ngëm goo xam ne doomu aadama dafay làmbatu ngëm gu làmbatu loolu la waa banu israil waxoon Muusa Muusa woo leen ne leen kaay leen ma yóbbu leen ci yàlla ñu dem ba yegg yàlla di wax ak Muusa wax ji neex ñu ne ko Muusa lan nu'minu laka hatta nara allaha jahratan ah dëgg la ñu ngi dégg muy wax waaye bala ñu lay gëm ne yow yonent nga nga génne ko mu ne ŋaas toog ñu jàkkaarloog moom bañ ko waxee dootuñu ko defati moo tax fii ñu naan ñoom yàlla lañ wala gis nañ yàlla dañoo alku jànguñu alquran rek ñooñu bañ waxee Muusa lan nu'minu lak hatta nara allaha jahra yàlla mu ne fa axazathum saaiqa benn xaacu moo xaacu seen kaw ñoom ñëpp ñu dee seddu guy benn xaacu lañ leen xaacu ñoom ñoom ñu dee moom Muusa ci boppam bi mu ne yàlla dama laa bëgg a gis yàlla feeñu ko ci ay leeram mu gis leeru yàlla gisul yàlla mu xëm de daal di daanu ci suuf waaw kon ñi naan fii ñoom dañoo gis yàlla wala ci ñoom ay yàlla lañ lu ko waral mooy chaque jour ngëm gu ñuy làmbatu ngëm goo xam ne amoo foo ko teg ci ay sàmba ci démba wiiri fii diw moo def lii wala nga judd rek dégg ñu ne nangam nga daal di gëm loolu nga daal ciy continuer bëgg cee dee loolu moo ñu indil problème nit lu muy gëm day leer nit lu muy gëm da koy teg ci yaqiin gu wóor gu leer ci ay texte ne lii mu gëm lool la waaye ngëm gu ñuy làmbatu taxankati guddi soo nekkee taxankatu guddi nga dem ci àll ba di taxan balaa ngay xam ne li nga jël dugal sa biir saag li ci ëpp du ay bant bët set waaw boo toogee ba midi nga ne indil leen ma saaku yi ma jële woon ci àll bi nga sotti ko yenn saa yi nga fekk fa ay dem àll ba yu wow koŋŋ yoo xam ne yaa ko buub ak sa loxo dafa ne woon ay matt la dugal sa biir saag ixwatal imaan ñetteel buy tax doomu aadama di dugg ci bokkaale ci sirk mooy aljahlu mooy réer te loolu nag moo yomb ci ñun réer ñun nangu nañ xam lépp ba mu des sunu diine lépp nangu nañ koo xam ba mu des yàlla lépp nangu nañ koo xam ba mu des Qur'an lépp nangu nañ koo xam ba mu des Muhammad te doomu aadama warul nekk ku réer waroo nekk kuy làmbatu sunu borom subhaanahu wa taala mi ngi wax ci alquran ci suratu baqara ci mbirum Muusa mu ne wa iz qaala Muusa li qawmi inna allaha ya'murukum an tasbahu baqara qaalu atattaxizuna huzwa lan la wax qul a'uuzu billahi an akuna min aljahilin Moussa ba gaa yi ñëwee ne ko ñun kat dañoo rey suñu benn mbokk dañoo xëy suba fekk mu dee dañoo bëggoon comme yow la yàlla yónni nga fexeel ñi ñu xam kan moo ko rey ndax bi ñu xamee ku ko rey kooku du doon mu ne leen dem leen ngeen ut benn nag ngeen rey ko kay na ko yow xanaa da ngaa rep yow ñu ne la dañoo rey suñu mbokk nga naan ñu rey leen nag ñu perte waa ji perte nag bi da nga ñuy reetaan lan la Moussa tontu a'uzu billah an akuna min aljahilin yàlla na ma yàlla musal ma bokk ci ñi réer yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi ko yàlla woowee mu war a génne daawa bi lan la ko yàlla wax fasdaq bi ma tu'mar wa aarid anil jahilin fasdaq bi ma tu'mar lii yàlla jox la muy woote lislaam leeral ko génne ko bul nëbbatooti parce que yonent bi nëbb na mbir mi fukki at ak ñett yàlla mu ne ko nëbbutu bi jeex na génnal ci biti na nit ñi dégg ku ko bëgg a dégg na ko dégg ku ko bëggut a dégg na ko dégg man shaa fal yumin wa man shaa fal yakfur ixwatal imaan réer baaxul réer nag moo ñu dal tey waaye réer gi dafa am fu ñu ko orienté foofu lañ ko nangoo ci suñu wàllu àdduna nanguwuñu réer ku judd ñu jàngal ko su demee ba njàng mi demul ñu jël ko jàngali ko métier utal ko lu mu def koo gis ci dëkk bi muy lambar lambari am na luñ ko utal lu muy def day jàngi wala wala wala mu nga ne sax di ko di jàngi métier kenn taxawul di même jigéen ñi sax da ngay dégg même góor ñi ah man de léegi dootuma takk jigéen ju liggéeyu waaw ku nekk bëgg ngaa def dara lan moo tax sunu diine jaral ñu loolu lan moo tax nanguwuñu xam pas-pas bu wér lan moo wér di ngeen yaakaar da ngay xëy rek gëm loolu wér déedéet am na ku gëm jant am na ku gëm weer am na ku gëm asamaan am na ku gëm ndox am na ku gëm garab am na ku gëm jinne am na ku gëm malaaka am na ku gëm yàlla am na ku gëm nit ñii ñëpp ñoo bokk luñ gëm déedéet def ci am bu wér am bu wérut bi wér mooy yàlla kese kese kese amul dendalaat amul bokkaale yeneen yëpp benn wéru ci mais ñoo ñëpp am nañ lu ñu gëm nan ngay xamee loolu mooy foog nga nangoo jàng foog nga nangoo xam ne man bu ma gëmee yàlla amatuma amatuma droit wóolu ay ndombo amatuma droit wóolu ay lam amatuma droit takk ay nangam amatuma droit dem ci ay bàmmeel di saade ay nen amatuma waaye fii da ngay gis ku gëm yàlla ba pare takk ñetti wëñ bu xonq bu weex bu ñuul soo ko nee lii mu ne la lii de daf may musal daf may aar ñaata nit ñoo takk ndomb wala béjjën soo waxee ñu ne allah dundu kay reenata reenat lang allah dundu reenata palaaso allah du so tawino ina nafa ummata koye hoore joomum wona ko noon mbiɗon onon fulɓe wiɗon allah du so tawino ina nafa ummata koye hoore joomum allah du ndu hoɗɗo wonno wona e mbaalu walla e nagge walla ɗum wara tewngu ñaama ƴeeɗe ŋeeca nguru ngu feŋa to so yoori ina juule walla waɗe paɗe ina ɓorno walla waɗe sac walla waɗe sentir ƴetta allahdu ndu haɓɓa e hoore ma walla haɓɓa e oto damal galle ma walla haɓɓa e place ma wiya ɗo kala dariɗo ɗo ma yeey ah loolu mooy suñu problème di wóolu wala di gëm lu dul yàlla loo xamante ne du dara mbindeef la comme yow ay béjjën ak ay weñ ak ay xottaaw ak ay pettaaw ak ay sindax ak ay gunóor ak lu nekk ngay gis nit ñi di takk lu nekk ana yàlla lu ko waral mooy réer réer baaxul mbokk ji borom bi tabaraka wa taala nee na qul afa gayra allahi taamuruni afa gayra allahi taamurunani abud ayyuha aljahiluun yéen ñu réer ñi man dama leen di wax yàlla ngeen may wax ay ndombok ay bàmmeel ak suufu sàngam ak garabu sàngam ak ëkku sàngam ak dembaak yooyu da ngeen ma koy wax ana yàlla kon aljahlu réer dafa bokk ci li nga xam ne moo tax bokkaale daa di bari li tax nit ñi di bokkaale ñi ci ëpp li ñuy def ñàkk a xam moo ko waral moo tax doomu aadama warul nekku réer doomu aadama dafa war a jàngi doomu aadama dafa war a gëstu ñeenteel mooy ittibaaul hawa topp bànneex wa shahawaat ak li nga bëgg nit ñi tey li ñu bëgg rek la ñu topp soo waxee li ñu bëgg ñëpp yuuxu ñëpp kontaan boo waxee yàlla ñëpp daal di mer wa iza zukira allahu waxda izma azzat qulubu allazina laa yuminuna bil axira fa iza zukira min dunihi fa iza hum yastabsirun boo nee yàlla ñi toog ci jumaa ji ku nekk toog xol bi jeex waaw xol bi di fuur parce que yàlla la ñuy wax yàlla yàlla waaye boo waxee keneen rek est-ce que ku nekk di yuuxu di fettasu gëm leneen yàlla moo ñu wax loolu te nag yàlla rek moo fi nekk amul keneen ku dul moom koo fi wóolu koo fi yaakaar mi ngi am ay aajo mi ngi am ay problème mi ngi deele mi ngi am ay jafe-jafe te munu ci dara te koo fi yaakaar boo deewee du ko yëg lu dul ñëw ñu ne ko diw dee na mu daal di tëb ci kaw lalam fa mu tëddoon daan ne loolu kañ la kañ la dee ñu ne ko démb ci guddi mu ne xanaa kooku dafa feebaroon gis nga xamal ci yow dara xamal yàlla wóolul yàlla yàlla moom foo nekk wa huwa maakum aynama kuntum yàlla doomu aadama du ko yaakaar yaakaaram di tas yàlla doomu aadama di ko wóolu borom bi tabaraka wa taala di tas koolu tegi yonent yàlla Muusa keroog ba Haaruna faatoo dafa ñëw gas ba mu ko daal di koy suul toog di jooy yàlla ne ko Muusa lu xew mu ne yàlla kii dama ko yërëm fii mu tëdd moom kenn moo fi nekk tey cundung maa ngi moom la woon maa ko doon wéttali ñoo nekkandoo woon tey moom dong moo ngi fii maa ngi dem di ko bàyyi yàlla ne Moussa demal dama nga doxi say soxla kii naka laa ko doon dimbalee bi muy noyyi bi muy dox bi muy am kattan bi muy am kóolute bi muy mën man yàlla ma nekk ci loolu di ko jàppale tey mu nekk fii mënatul dara ma ko fi bàyyi demal kon yàlla moo nekk fépp yàlla mooy borom lépp yàlla moo moom lépp doomu aadama na mooy tandiku topp ay bànneex alhawa tey bokk na li tax Sénégal bokkaale bëri fi mooy topp bànneex ku nekk lii moo la neex rek nga topp ci di yuuxu di zibile di daw ci mbedd yi di ci rey sa bopp te xam nga ne lii sa bànneexu bakkan kese la waaye diine nekk ci lu ëpp tey lu ñuy daw ci Sénégal di ci rey suñu bopp di ci dugal suñu ay alal di dof doflu da ngay gis jàkka ju nekk ci benn koñ ñuy laajte juróom fukki at juróom ñaar fukki at kaa leen ñu tabax ko ñëpp kenn du ñëw waaye bu bànneex jógee su fekkee ne waa jàkka jooju wala waa nangam boobu benn kuréel la suñ nee waa rek ca suba sa lépp mat waaye bu dee jàkka mbedd yi juróom fukki at lu waaye mën ci jumaa ji juróomi dërëm la ñuy joxe te kooku sax bu dugalee loxo ci poos bi loxo bi day wax mooy tandikul këyit gi loxo bi ci biir poos bi la nekk di moytu këyit di naan nii waaw moytandikul këyit yi moytandikul yu weex yi waaw da ngay xos sa baaraam sax yenn saa yi ndax def na kirij kirij nga xam lii nga war a joxe ñaata la allahu akbar waaye bu dee ay caaxaan ak bànneexi bakkan léegi nga gis ku dégg génne 2 milliards ne moo ngi nii pour lan pour bànneexi bakkan kese ixwatal iman kon topp bànneexi bakkan day tax doomu aadama di bokkaale borom bi tabaraka wa taala wax na ci alquran fa xalafa min baadihim xalfun adaau salaa wattabau shahwaat ñu bëri ci doomu aadama yi bay nit ñu baax ñi demee jaamukatu yàlla yi dem ñëw wuutu mooy ñoo xam ne dañoo sànq julli du ñu julli xoolal tey li ñuy tiitaroo ay jàkka 19 milliards jàkka 50 milliards te kat wala yaamurunaha li yonent bi waxoon bokk na ci mandarga yowmal qiyaam di tabax ay jàkka di ko toilette ba mu def te kenn du ko dundal jàkka yi dañuy dañ leen def ba ñu mel ne ay panaal te duñ kenn du ko dundal kenn du fa julli kenn du fa jàngale amul dars amul tafsir amul dara allah wa semaine bu nekk wala at bu nekk benn yoon lañ koy bu benn yoon loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba waa ji di tabax jàkka ji yonent bi ànd ak moom da ko noonu laa tuxammir wala tusaffir bul zonal bul xonqal ñun daal li ñu bëgg bu naaj bi ñëwee bu mu ñu laal bu taw bi ñëwee bu ñu ndox mi laal loolu lañ bëgg ixwatal iman mbir yi mooy tax doomu aadama di bokkaale yàlla tabaraka wa taala bokk na ci yooyu alkibru mooy rëy ngand ngandalu te loolu xam ngeen moo fi nekk ngand ngandalu wane sa bopp yëkkati sa bopp yëkkati sa dënn yëkkati fi nga bokk yëkkati ñi nga gëm te yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na laa yadxulul janna man kaana fi qalbihi misqaalu zarra min al kib min kibri kenn ci yéen du dugg aljanna koo xam ne xolam bii wala dënnam bii lu toll ne tarfatal ay ni ci rëy mu ngi ci tey loolu moo fi nekk ngand ngandalu waaw rëy ku nekk di jaay sa moroom ñun ñoo mën lii maa moom lii maa mën lii dinaa la dóor duma la te sama loxo du la laal ku nekk di ngand ngandalu te yàlla nee na rëy sama mbalaan la rëy sama mbalaan la képp koo xam ne lamboo nga ko dinaa ko ñori ba nga def yaramu neen keroog ba Ibrahima ñëwee di waar Namrud di ko ne mu gennal yàlla mu gëm yàlla mu bàyyi bokkaale lan la ko Namrud a wax di ngand ngandulu borom bi di ñu ko nettali ne alam tara ila allazi xaaja ibrahima fi rabbi an aataahu llahu lmulka iz qaala ibrahimu rabbi allazi yuhyi wa yumiit qaala ana uhyi wa umiit Ibrahima ñëw ci Namrud Namrud ne ko kuy sa borom mu ne ko yàlla lan lay def mu ne ko mooy dundal mooy reye mu ne ko man tam damay def loolu di ngand ngand loo ngoog waaw wax yooyu ngay dégg fii Sénégal ngand ngand lu suñ ne yàlla day def yi nga ne man tam dama koy def yàlla mën na li nga ne ñun tamit diw mën na ko am na sax benn waay bi bu ngeen dégg ne da doon yalwaan naan ngir yàlla ngir yàlla keneen naan ngir diw ngir diw kooku gaa yi di ko sarax kooku naan ngir diw gaa yi di ko sarax ki naan ngir yàlla gaa yi di ko rom benn waaye ne ko tee ngaa wax kee li muy wax ndax nga mel nim nga am lim am mu daal di bàyyi loolu wax kee li mu wax mu daal di romb suba si daal di leer mu ne ko ah gis nga de bi nga bàyyee yàlla dem ci diw gis nga ni nga leeree ni nga amee waaw gis nga diw ni muy def ay waayam waaw waaye yàlla waaye doon yalwaan naan waaye yàllaa ngi yalwaan waaye yàllaa ngi yalwaan gaa yi di ko romb keneen ñëw ne waayu diw gaa yi daw ah allahu akbar fan lañ jëm ñun bu ñu yemee ci ay corona ak ay mbënd ak ay nangam nangam nanu sant yàlla bépp bàkkaar boo xam ne gaa yi defoon nañ ko démb yàlla alag leen ñun def nañ lépp Ibrahima ne waa ji yàlla mooy dundal mooy rey mu ne ko man tamit damay dundal damay rey mu daal di jàpp ñaari rey kenn ki ne kii baal naa ko mu ne gis nga kii ba- rey naa ko kii baal naa ko ibrahima ne ko subhanahu wa taala fa inna allaha yaati bi shamsi min al mashriq faati biha min al maghribi waaw sama borom day moom mooy jële jant bi fii penku indi ko sow bu ko yàlla indee fii yow delloo ko fii ñu ñuy coow fi naan leen ay yàlla yëpp ñoom ñoo gën a tey ne kenn du ci yàlla waaye lan moo ñu jàpp reewande lan moo ñu jàpp lëndëm lan moo ñu jàpp réer lan moo ñu jàpp rëy lan moo ñu jàpp ngëm gu ñu làmbatu lool moo tax waaye xam nga ne nit daa di faatu ñu sang ko suul ko ay ati at nit ñi dem di zaare ji bàmmeel nga taxaw naan ko yow yaay yàlla benn dof dof dof dafa gis kenn ku taxaw ci bàmmeel di di ñaan naan visa laa bëgg damaa bëgg a tukki damaa bëgg a tekki damaa bëgg damaa bëgg damaa bëgg dof bi xool ko ba ci yàgg mu ne ko eh waa ji daal di xool mu ne ko ki ngay ñaan daa dem Dakar ki ngay ñaan dafa dem Dakar mu ne ko yow xaaral nga dof kii dee mu ne ko ah ku dee kon dinañ ko ñaan boo gëmoon dafa dee kay kon doo taxaw fi di ñaan allahu akbar dof dof yal nañu yàlla wan dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal nañu yàlla wan neen mu wërsëgal ñu sori ko الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا بوكنا تلتاخ نيت ني دي بوكالي موي التقليد والتحكيم العادات الصائدة بدون دليل mooy toppandoo ak di àttewoo ci aada yi nga xam ne ñoo tasaaroo te dalil amu ci wallaahi dëgg la aada yi ak toppandoo fekk nit ñi di def rek inna wajadna abaana ala man kat damaa fekk sama papa ak sama yaay lii la ñuy def loolu laay def ñooñu loolu mooy seen problème ñeneen ñi moom dañoo fekk aada yi ak bidaa yi ñu daal di koy jàpp daal di koy def jeex na lii kese moo tax bokkaale gi bëri ci kenn mënu koo weddi ku fekk fii ci ñun tey sa papa ak sa yaay di sotti ndox seen buntu kër ba tey boo xëyee da ngay jël ndox di sotti même boo toxoo sax jël sa këru bopp sa papa bu fekkoon ne kaw ga la jóge doon sotti ndox nga ñëw Dakar am fi benn immeuble boo yeewoo fajar foog nga jël ndox mi di roose. fi la ne mahaasa foo jëlee li nga ne ah uwa ay puusal ni waay doo indi dalil ne ndox dañ ko war a sotti ci buntu kër bu ñu yeewoo Dakar ñi fiy sotti ndox yëpp fu ñu ko jële ci seen i maam koo ko fi wax ñii tukki di lal ay paftan ñii di toj ay nen ñii di fu ñu ko jëlee ñun ñi ñëpp fan lañ ko jëlee ñuy sotti ndox ci oto yi waaw même place yi bu ñu xëyee da ngay gis waa ji ut mbuusu mbuusu glace ba pare yenn saa yi nga dégg mu ne mbaa bu sedd la na sedd guy lan la ñuy yaakaar ci ndox moomu ci nawet lañ nekk ñaata ci nawet bi la ndox ñëw alak ay nit ñaata ba léegi ni yéen a gis président démb daa tukki woon ngir lan ngir wàllu ñu nekk ci ndox kon ndox est-ce que moom mooy mayee jàmm est-ce que ndox mooy indi sedd Firawna ci lan la ko yàlla alak xoolal yonent bi li mu joxe ci yow booy génn sa kër bismillah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata mais Sénégal dañoo bañ a bàyyi ay aada da ngay gis ku ne man jullit laa ba pare topp aada topp ay bida topp ay maamam topp topp soo ko waxee mu ne ah man wax dëgg yàlla lii laa fekk suñu mbokk yi def rek damay def li ma benn jigéen waxoon man kat danaa julli danaa jàpp danaa julli danaa danaa danaa mais sama problème mooy bu ma toogee foofu ñuy yëngalee baaraam bi man damay yëngal kese waaw man damaa gis ñu yëngal rek may yëngal ñun ñëpp loolu la dañoo gis ñuy yëngal rek ñun tamit ñuy yëngal dañoo gis ñuy sotti ndox ñuy sotti ndox dañoo gis ñuy tëb di tëb ci tam xarit bi am na benn paa bu nekkoon ci benn koñ moom jouru tam xarit seen ñaan yooyu day def day def lu mel ne benn cercle loolu xale yi naan palaa liin palaa liin waa koñ bi dañuy rang benn paa jógee Indonésie ñëw ci koñ ba doon ziare rek te juru tam xarit rek mu ñëw fekk leen ñu leen di tëbloo cercle bi mu jàpp paa bi palaan lii loo ko paa bi ndigg li di metti mu ne ma ne ma ne góor gi palaan lii loolu la moom sama ndigg laa nga metti di tëb ay cercle cercle yooyu pour lan la soo ko waxoon lan la mu ne ah man lii laa fekk ñun ñëpp loolu la fekk nañ lii dañ koy def au lieu ñu teg ko ci diine au lieu ñu teg ko ci texte bu leer bàyyi caaxaan yee xuraafaat yi juróom ñaareel ci li tax bokkaale bëri mooy as seytaan wa makaidu seytaan seytaan du ñu bàyyi moo ne woon yàlla kenn dugg àjjana danaa ñëw ndeyjoor ñëw càmmoñ ñëw ci kaw ñëw fépp la aatiyannahum min bayni aydihim wa an shamaa'ilihim dinaa ñëw ndeyjoor ñëw càmmoñ ñëw ci kanam ñëw ci ginnaaw mu ne wala tajid aksarahum saakirin ñi ëpp ci nit ñi yow yàlla ëllëg doo fekk ñu lay sant seytaane moo ñuy wax yooyu seytaane moo na laan waaw diw mën na loolu diw bu ko neexee léegi mu naaw dem ci kaw asamaan diw bu ko neexee léegi mu sone malaaykal mawti di bu ko neexee léegi mu poñe jibril di seytaane moo lay wax loolu léegi nga dégg benn waaraatekat bu kannasu dóor ay pion dóor ay xoox ba ni këkk taxaw naan la démb jib diw ak jibril ñoo toogandoo woon di naan ataaya loolu ngeen di dégg nañ leen defaraat suñu pas-pas ajjana mooy yoonu yàlla moom lañu yàlla dig waaye yàlla dane ku bokkaale boo ñëwee doo fa dugg loolu bu yeboo ñu leeral ko suñu bopp suñu neexee bu ñu naqaree bu ñu gëmee bu ñu nangoo gëm wallahi lazi la ilaha illa huwa ku boole yàlla ak keneen ba nga dugg bàmmeel sa àllaaxira yàqu na ku dendale yàlla ak keneen ba nga dugg bàmmeel sa àllaaxira yàqu na ku jàpp keneen bàyyi yàlla yàqule nga loolu na leer ci ñun allahumma ixfir lana ma qaddamna wa ma axarna wa ma asrarna wa ma anta aalamu bi minna anta almuqaddimu wa anta almuaxiru la ilaha illa ant allahumma ya hadi ihdina الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا إلى دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك رب اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الغفور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله